soo liggéey bi moom maa ko liggéey Saal moom ma ko sant pour ma liggéey ko ko pour award moo trop d'abord soo bi nekkul fees time ñu liggéey ko liggéeyal nañ ko ko moo time liggéey nañ ko moo time soo job bi ñun suñ job la mun nañ ko wax dëgg yàlla soo liggéey bi kontaan si trop ndax ki ñu ko defal moo tax ñu kontaan si ndaxte ki ñu ko defal daf ko jar daf ko mérito pour ñu defal ko ko soo moo tax suñ ko def dañ ko dañ di am kontaante bu baax ndaxte dafa nekk koo xam ne dafa nekk di dimbale nit yi si si lu mu mun te ku nekk loo mun nag si nga mun a dimbalee nit yi soo loolu dama si dee kontaan bu baa su ma waxee ne dafa liggéey toogu sax dama di am mbégte lu ma jàpp lu mu xat-xat dama koo bàyyi pour liggéeyal ko ndax xam naa ne kum ko jox nekkul koo xam ne ku fulis la nekk na koo xam ne kuy dimbalee nit yi di si gërëm suma boos tamit moo nekk Moustapha ak Ablaye Silla di booy ma ko ànd ak liggéey na ñoom Bouba musa ñooñu laa ko ñooñu laa ànd ak pour liggéey ko. pour ba liggéey bi toll ba fi nekku man kenn maa liggéey jàppalante la parce que liggéey aar la ku nekk daf see dugal xalaatam rek ah, liggéey bi moom soo dafa des comme borom ban time la ko soxla la liggéey bi su fekkee ne one week time sax nga ko bugg sax mën nañ liggéey parce que luñ mun la nekkul lu ñëw aaga di ko jàngaat di pour def ko